ngeen jot suñu vidéo nag foo a jot moo leen vidéo a xam li nga xam ne kon. soo jëlee nag kaaw sëñ Abdou moom. li may faral di wax rek man sëñ Abdou damaa am kersa sama diggante ak moom. léegi dama koy làqatu. taarikal dama koy làqatu keroog muy def déclaration yéeguma ko dëgg la benn instant laa yéeg premier noonu rek ubbi rek gis mu ngi toog di wax mu tëjaat yéegalu ma te bu mbir mi amee ba léegi defe naa coono gi mu ki daj mhm. sama bi mu jur daju ko ci léppam la bàyyi lépp lépp nekk ci loolu nag ku mu doy dafa def ma xamul xamul lay doy dama ko xamul sëñ Abdou Mbacke mhm. man mënuma koo gërëm lu doy. danaan sama sëriñ la waaye ëpp na loolu. dafa ëpp loolu. parce que kenn ku ne mun nga am sëriñ léeg-léeg nga dem seeti ko. dëgg la am tuuti loo toog ak moom mu defal la ñaan nga dem wala nga dis ko say mbir. dëgg la waaye moom dafa dépassé loolu maanaam moom dafa dafa dafa am une complicité naturelle. dëgg la naturelle dëgg la. kon mhm. euh, ma seedeel ko ko fii. sëñ ab su dul woon sant gi sax hmm. suñ ko jëlee ci nite gi rek hmm. nit la bu yàlla defaral boppam hmm. te loolu unanimité la kër goo dem kër diine goo dem kuréel diine goo dem bañ na ba daal euh, màggal daaru bi gis nga ni muy demee seen vision bi dafay ubbeeku ñëpp la ngay dajale rek kon euh, ma seedeel leen ko yéen ñii ci daayira bi jërëjëf ni ah sëñ Abdou de mat na liñ ko doyee. su dee sëriñ dong dong dong. dañuy seet. mbal na ko. alhamdulilah. waaw parce que lii la ñuy doyee sëriñ. alhamdulilah moom wax na ko day doore doore koog man. dëgg la dëgg la. ndax bi Sénégal di tàgg 2009 ak ñoom seen. Mhm. ñi fi yor tey dëkk bi di di tëb yëpp. Eh, këram lañ doon dañ. wala ñu woo ko ne ko waxal ci mbir demal def lii. jot a vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biir réew da di abonné fii si Tawfekh Production a jot moo leen vidéo